اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan ak fuñ mën a nekk ñu ngi leen di nuyu ci euh, nuyoo bu tedd di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi leen di nuyoo nuyoo bu lislaam boobu waaye di leen nuyoo ci barab tedd bi nga xam ne mooy Thiès ci kër Cheikh Saliou Mbacké waaye euh, di leen nuyoo itam ci doomam ju tedd ji di cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu cheikh Salif Mbacke di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér mbokk yi bu ngeen gisee jataay bi eh, gis pàkk bi ñu toog gis kilifa gi nga xam ni moo nekk ci sunu ginnaaw di cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu cheikh Salif Mbacke eh, seen xel war na dem ci sunu sang bu tedd ba sunu yaakaar ja sunu sëriñ ba di cheikh Salif eh, jataay bi fi ngeen ko gisee. Eh, xam ne li ko waral mooy gàmmu gàmmu di eh, guddik eh, ganek yonent bi sallallahu alayhi wa di guddi gu mag gi nga xam ne ci la ak yéef ak kéefar faye ci la dëgg taxawe ci la islaam taxawe ci la buumuk njaam doge waaye ci la jullit yépp texe ci ci képp koo xam ni nee nga ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah euh, kon nag euh, ginnaaw bu ñu jiitalee kàddu yooyu nga xam ni mm, niñ ko waxee léegi euh, mooy guddig yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xam borom pàkk bi ni mu ko fonke woon ak ni mu ko farataale noonu nga xam ne daana wax ni man sama gàmm na ma ko daan defee ñëpp xam nañ ma ci ndax eh, eh, danaa daanaa ci def lépp lu ma man ba àdduna bépp xam ma ci ba fu ma nekk daanam ñoo fa fekk di ko gàmmoo ak man jëmm ju tedd jooji moo wax ni eh, sama kër ya ca Thiès ak ya ca Mbuur ak ak ak bépp barab boo xam ne sanc na ko ay gàmmukaay la ay gàmmukaay la loolu yi la doomam ju tedd ji Cheikh Mamadou Mortada xam ba tax mu mu ko fi dundal at mu jot at mu jot mu ko fi dundal mm, daanaka mi ngi ko tàmbali woon depuis deux 2009 ba léegi ba ñu ngi ci vingt 2022 kon diir bu yàgg la euh, waaye itam def gi mu koy def mu ngi ciy barkeelu waxi woy juróom wu tedd woowee euh, ak xam ni moom fonk gi nga xam ne fonkoon na ko gàmm mu ci barkeelu ci jëmmam ja ak lam lam tuddoon ci aw làmmiñam ni bërëb bi bërëbu gàmmukaay la loolu mooy sababu euh, di ko defee fii ci Thiès di ko ànd ak taalibe yi euh, niñ koy defee it ni ko maamam waxee rek ci jës bu mooy tanzimuhu bi sunnati tanzimuhu bi sunnati ñu koy màggale ci euh, sunna noonu la ko Cheikh Mouhamadul Mortada ànd ak taalibe yi di ko fi defee Euh, yéen a ngi gis jataay bi nii ñu ngi jàng alxuraan euh, bu guddi gi euh, tàbbee kuréel yi danañ def ñetti pàcc comme ni ko seex suñ mag bi daan ko defee fële ci njaareem mooy jës bu muwaahib mu xaddimaat di jàng barsin bi fanaanee ko ba bët set waaye lu jiitu loolu itam danañ def ay waxtaan ci jikko yi nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lamboo woon te mooy jikko yu rafet yi nga xam ne képp koo xam ne jaar nga ci di nga taxee àdduna ak alaaxira kon mbokk yi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci bés bi waaye di leen ndokkeel bu baax ci guddi gi tedd gi di ñaan suñ boroom lépp loo xam ne suñ boroom digg ci képp koo xam ne def nga lu rafet yàlla nañ ci dajeek tew tawféexi euh, sëriñ bi kon Euh, kaddu yi daanaka euh, mën naa bañ a gudd foofu lañ koy yamale xanaa liñ ciy toftal rek mooy di ñaan ñaanal suñu sang bi nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Mortada nga xam ne xeeñtu mboorum Cheikh Salif Mbacké moo ko indi ci barab bi waaye itam euh, dundal guddi yonent bi nga xam ne Serigne Salif Mbacké ci boppam moo wax ni barab bi ci barab yi nga xam ne ay gàmm ay gàmmukaay la loolu ko loolu ko fi indi ànd ko bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ni ma ko waxee itam euh, Cheikh Mouhamadou Mourtada euh, ndax mm, fa man taaman hëya jooju sëñ bi wax fa man taaman hëya li man la koo xat xara mu bajj bajjilan fa xaba xayraati ahlil himami euh, maanaam guddi gi des na ko ci sunna sunna nag buñ ko waxee toggu ñam mm, joxe ci la bokk ndax kenn mënu koo génne ci sunna ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na ko def bokk ci itam yi nga xam ni sëñ bi sëñ mag bi da koo tudd ci jës wax ni képp ku ko def dana tuufu bi sukkarin aw laxami fa innahu xat zafira fa innahu xat zafira bi maa yudimul bushara wala yulaqi darara yow ma jitimaa lima bi kon euh, ay berne ko sëriñ bi di màggale mooy bernde jàng alxuraan jàng xasida ak def ni ko xam ni noonu la ko sëñ mag bi daan defee ci njaareem mooy yëkkati kuréel yi ginnaaw bu ñu fàttalee euh, bokki jullit yi ak bokki taalibe yi li nga xam ne mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee fanaane li nga xam ne moom mooy barzan jiw bi kon mbokk yi loolu mooy li nga xam ne moom mooy eh, programme culturel bi nga xam ni eh, ñu ngi koy defee fii ci Thiès ci keppaaru Cheikh Saliou waaye keppaaru Cheikh Mamadou Mortada ibnu Cheikh Saliou ñi ngi ñaanal ñëpp suñ borom defal leen tawféqi eh, defee guddi gi ni ko suñ borom diggee ni ko ni ko ni ko ni ko suñ borom diggee diglee yàlla nañ ci dajeeg tawféex di nuyu waa euh, Tawfekh Production di leen sant bu baax ci taxawaay yi nga xam ni saa su nekk rek yéen a koy taxawee ci euh, kër sëriñ bi ak euh, yoon wi yëpp ak ak ak tarixa bi yëpp kon ñu ngi leen di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. من غنى شكرا وأرتجي منه في دارين أبكارا شكري لرب كريم من غنى سكارا وأرتجي منه الدارين أبكارا كتاب شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وسكرا وذكارا وجهت وجهي sahri nabi sanadi lil akrami rafi wahabi zakara عني وتأثيره لدهر كفارا إني أخاتبه في البحر مغتربا ولم يزل جلا قهرا وجبارا فجهتني ربي بالآلاء هب لي أن أعود للبرير لكل من بارا على النبي السلام عليكم ورحمة الله mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar tey jéggalu tamit ci kàddu yi di santaat Serigne Touba bu baax santaat tamit sëñ Moutala mu Serigne Saliou di ko ñaanal suñu borom gën ko fay yàggal lool te wéral ko ba li mu naal yëpp ngir liggéeyal sëriñ bi mu def ci lu kawe te suñu borom kàttanal ñu tamit ba lépp rek ñu àndoo ko ak moom. kon ñu ngi leen di nuyu yéen waa Tawfekh Production ci liggéey bi nga xam te ni si am na solo lool ngeen koy yaatal rawatina li ngeen koy li ngeen koy taxawoo ci kër sëñ Moutala mu Serigne Saliou. yéen itam ñu ngi leen di ñaanal suñu borom gën leen a dolli kattan bu baax a baax ba li ngeen di am yéene rek saa su nekk ngeen ci am lu kawe seen njort yéen itam dafay mel ni dangeen ñoo fekk si si liggéeyu sëñ Moutala mu sëriñ Saliou ci wàllu taxawaayu gàmmu gi ak liggéey bi nga xam te ne si moo gën a aju ci wàllu waañ bi nga xam ne si ni ngeen ñu gisee nii daanaka ñu ñi taxaw ñoo nekk ci liggéey bi xëy na niñ ko mën a waxee mooy nekk ci kanamu liggéey bi ànd kook mbokk taalibe yi ci wàllu góor yàlla ak ci wàllu soxna yi te mu doon liggéey boo xam tamit noonu la ko sëriñ bi taamoo mooy ku si nekk rek fa nga féete nga jéem sa kéem kàttan ba lépp mën a jàppandi te lépp rek ñu koy def te sëriñ mu talaa tax kon day mel ni daanaka kàddu yu jëm ci wàllu liggéey bi sëriñ Mamadou Diop mi nga xam ne moo nekk sunu sunu càmmoñ nga xam ne mooy jëwrinu daayira Nahju bu Géejawaay xëy na li jëm ci wàllu kàddu yi moo ciy gën a ëpp kàttan kon bu ko defee moom dina mën a àddu ci wàllu mbana yi nga xamante ni si matal nañ ko fi ci wàllu añ bi ak li ñuy waajal ci wàllu reer bi ak taxawaay bi nga xamante ne si tamit xëy na mbokk taalibe yi am nañ ko dëgg-dëgg ci biir ci biir liggéey bi kon xëy na sëñ Mamadou Diop la ñuy jox kàddu gi moom mu gën a yaatal. waaw bisimilah barki borom tubaa Touba barkab Seydina Serigne Saliou ah noo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare te di leen jox seen wàccuwaay waay ah, di jégalu bu baax ci maanaam kàddu yi nuy yëkkati ndax kii nga xam ne mooy jëruñu waañ bi muy Assane moom moo nu jox kàddu gi kon ñu fas yéene koo jëfee rek ndax ñun ak moom ñoo fi bokk nekk mu jiitu ñu topp si ginnaawam fas yéene àndee liggéey bi noo xamante ne nii macha allah waaye sunu wet ñu ngi feggoo ak jëwrinu asalam muy soxna euh, jatu moom mi ngi dëkk ba asalam di feggoo ak ku ci mel ni it faali moom mi ngi dëkk euh, golfu bokk ci daara doon jëwriñ ci daara jooju ku ci mel ni asu joobit ak soxna ku fat jëy ak soxna Kumba mii nga xam ne ñoom ñoo féete fii cees ñun ñii ñu féete géejawaay doon fa doon jëwrinu daara ji fas yéene nag àndee li nga xamante ni mooy liggéey bi si at mu jot saa su ne ci nii ñu ko àndee nga xam ni yëre yi ñu nuróole ñoom jigéen ñi maanaam liñ ci jublu mooy maanaam kenn bañ a xeeb sa morom te it waañ bi dafa baaxoo maanaam bu ñu fi nekkee maanaam lépp rek di benn te loolu moom lañ doxee nii ci ci liggéey bi kon ñu ngi ciy santaat sëriñ bi bu baax a baax ci taxawaay boobu di ko ñaanal nag sunu borom yàggal ko te wéral ko ndax amaana tey jii maanaam am na taxawaay bu mu doon am duñ mel nii nu mel ci liggéey bi kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax waaye liggéey bi tey ni nu ko doore bi nu xëyee togg nañ fi laax maanaam jox ko jaam ñi ñu xéewloo ko ginnaaw bu nu joxee kafe ak mburu ba pare eh, defar nañu laax joxe ko jaam ñi xéewloo ko ñu defar ay añ ci ñaari anam bi si njëkk mooy ceebu ndawal maanaam mooy ceebu jën nga xamante ni maanaam yooyu dañ ko def ngir maanaam képp koo xam ne xeme moo ceebu ndawal bi nga jël ceebu jën bi mu doon loo xamante ni dina jariñ ñëpp ginnaaw loolu it reer bi ñi ngi ko fas yéene àndee fas yéene koo def maanaam miche wi li si jiitu ak petit pois ak vermicelle maanaam dañ ko partagé ci sunu biir nag ku ci mel ni man dama yor wàllu miche bi Assane moo yor wàllu petit pois bi ak vermicelle bi waaye ñu ngi ciy gis tawféexu sëriñ bi di ci santaat bu baax a baax li tax ñu ciy sant nag mooy maanaam liggéey bi ban ko tegee ci suñu loxo ba tey ñu koy doxal sëriñ baa ñu ciy dimbali di ñu ci teg loxo ba li nga xamante ni moom la ñu ci bëgg maanaam ñu ngi koy am ci ànde soxna yoo xamante ni wax dëgg yàlla nangu nangoo topp ci suñu ginnaaw nangu bu nangu ñu digal leen nangu ñu tere leen ba liggéey bi egsi fii tey day mel ni kon loolu moo nekk li nga xamante ni mooy doxinu waañ bi li fi am lépp ndax kenn seetaanul son yëpp bu ñu fi duggee maanaam kenn ku ci nekk ak na ngay taxawee ci liggéey bi góor yàlla it maanaam ak nañ ci war a taxawee mu doon ay góor yàlla yu nangu ñoo xamante ni maanaam bu xasee ba dugg amatul lenn koo ci ne defal lii du ci teg baat day jug jublu ci loolu kon loolu ñu ngi ciy santaat bu baax sëriñ bi ndax moo ñu teg loxo gënewun leen lu ñu leen di digalee ñuy def gënewun leen lu ñu leen di teree ñuy bàyyi ñoom sëriñ bi képp lan jàpp moo moo sabab loolu am kon ñu ngi ciy santaat bu baax di leen sant nag yéen waa Tawfekh Production deen ñaanal ndax yéen at mu jot ngeen àndee kook ñun kon ñu ngi ñaan suñu borom defal leen jàmm defal leen tawfeex yokku leen ba fi ngeen bëgg a jëm ngeen yegg fa ci fu kawe seen jot ci barki Cheikhuna Cheikhul Khadim day mel ni kàddu yooyu daal moo doonoon li nga xamante ni mooy ndigal liñ fi jot ci sunu ndigalu sunu jëwriñ ñun ñëpp nag Manel faal Manel Fall mi nga xam moo jiite waañ bépp maanaam moom mooy jëwriñ ji moom mii ak sunu yaay ndey jaxate maanaam nekk ci kanam ñun ñii ñu topp seen ginnaaw loolu moo nekkoon li nga xamante ni mooy dëgg-dëgg liggéey liggéey bi bu amaatul beneen laaj rek day mel ni kàddu gaa ngi noonu santaat nañ ci bu baax a baax di ñaan yàlla saa borom boole ñu dolli ñun ñëpp xéwal barkeb Seydina Serigne Saliou kon nag moom amiin amiin yàlla na si yàgg lool te wér wax leen sëñ Moussa Mbacke yàlla na si yàgg te wér nee na jërëjëf taslim man maa ngi tudd Soxna Ndey Jaxate dëkk Kër Massar doon taalibe Seex Murtala mu sëriñ Saaliwu sama sëriñ di sëriñ ñun ñëpp nag balay sa ñu ñëw nag ci suñu gàmmu sëriñ gii nag at mu jot nag yàlla nan ko yàgg a fekke ci barke sëriñ Saaliwu Mbàkke waajuram wu tedd wi te ñuy ñaan lépp luñ fi gàmmoo defal nañ ko ko addiyey sëriñ Touba moom Seex Murtala ndax nag balay sa moom rek lañ yaakaar te yéeg ëllëg sant nag bu baax a baax sant bu wér dañoo andi woon nag suñuy addiya yoo xam ne ci xéewalu mag gàmm gi lay doon te yàgg nañ koo def te yàlla nañ ko fi yàgg a fekk Mbàkke te lépp luñ fi jaamu yàlla man day jox naa ko ko addiya ci barke Seex Murtala sama sang bi tawféex ah yow ba yàlla baax na biñ tasee ak yow ndax yow yow lañ doon war xéewal tawféex yàlla na nga gën a xéewale ci barke Seex Murtala yal nanga yokk yal na nga wér yal na nga gudd fan tey yal na nga gën a naat yaag ñi ko ñu ko bokkal ci barki Seex Murtala jërëjëf jërëjëf الرحيم asalaamaaleykum mbokk taalibe yi gannaaw bi sante yàlla jul si yonent bi ñu ngi sant uh, sëriñ sëriñ muy Cheikh Mouhamadou Moukhtara moom sëriñ Saliou Mbacke li nga xam ne moom moo fi woote fii fi Thiès ci Grand Thiès kër sëriñ Saliou pour uh, màggal guddig yonent bi gën gi mu def mawlul nabi ñu ciy santaat bu baax ci uh, ànd bi ñu ànd ak moom guddi gi fii nag mooy nax ju event mooy kuréel gi nga xam ne mooy euh, bernde ganum sëñ bi waaw loolu moo ko tax a jóg comme ni ñu ko daan defee ci màggal gi rek ànd ko génn noonu lañ koy defee ci gàmmu gi tamit saa su ne ñu ci santaat sëriñ bu baax ci ànd gi ak ak ak Pastef waaw ko ànd ak mbokk taal bi yëpp comme ni nga ko comme ni nga ko gisee nii ni ngeen ni ngeen ko gisee nii euh, bi fi waa xeet yu bëree nga fi euh, lu mel ni bi fi beeg miche yi xam nga yonk seen bopp gratin poisson grillé lu nekk mu ngi fi boo ñëwee ci xeetu euh, yu sedd yi moo nekk froid di nga am différentes variétés de jui jus buy bisaab citron ananas bisaab blanc di tax euh, ak ak ak ak yeneen i variétés nga dem tamit ci wàllum show nga xam ne ndongoli Aly Gueye moo ko yor mu lay uh, mu jox ay mu lay defal ay was ay ay tee ay tisane nga xam ne guddi gi dañ ko bokk taale bu ba noppi dinañ mën a dinañ mën a dinañ ko mën a digérer bu baax a baax baax a baax waaw fii daal ku fi ñëw moom di nga ku fi ñëw bokk bu fi ñëw dinañ la bernde comme ni ko sëriñ bi bëggee wutuñu si leen lu dul mbegum sëriñ bi waaw ay ay ay ay ganub sëñ bi dañuy bernde ñu ngi santaat bu baax a baax ànd bi biñ ko ànd liggéey ak yéen waaw euh, waa Touba Tawfekh production ñu ngi leen di santaat bu baax baax ci taxawaay bi ak liggéey bi jaa ngeen jëf. bisimilah salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen màggal bu baax a baax di leen sant si teewaay bi fii di ñaanal sunu sëriñ sëñ Moutara moom sëriñ Saliou yàlla yàggal ko fi lool te ànd ak wër ñu yàgg di ànd ak moom di waajal gàmmu gi. fii nag comme ni nga ko waxee rek ñun ñoo fi nekk euh, di lijjanti ñi nga xam ne ñooy ay ganu sëñ bi ci wàllum berne pour mën a kiyal guddi gi daal comme ni la ko sëñ Malick waxee léegi rek xeetu plat yëpp comme guddi moom ñu ci bari bëgguñu sax ay kii yu diis mais dañoo def lépp li nga xam ne rek nit bu ñëwee yittewoo ko fii pour xewlu rek fekk ko fi euh, defar nañ fi miche dibi ay gratin poulet yooyu yëpp am na fi instalaat yépp présenté nañ ko fi pour képp ñoo xam ne même jën sax su bëggee mën ñëw fekk ko fi. Mhm. si so waaw togg yeex yooyu waaw waaw xam nga ñun ku xam murit xam ko ci benn am na loo xam ne moom si ñun la nekk ba pare sëñ bi nag mu nekk bëgg-bëgg sëñ bi ñu di ko ci fekk si di ko ci bëgg ko see taxaw bu baax a baax la dafa lépp lépp xam ne lépp loo xam ne rek sëñ bi yitte loolu ko pour ay ganam ay am di jàmm ay mbokkam yu bu ñëwee fekk ko fi ñu jàppale ko si bu baax toog mu nee na toppatoo bu baax a baax ci noonu daal foofu lañ nekk si liggéey bi <laughs> di wéyee ndigal rek <laughs> di wéyee ndigal waa <laughs> xeetu dessert ax yëpp am na fi ñoom it loo leen si bëgg li lu tàng ak café kii yëpp tisane luy waay bëgg rek incha allah bu ñëwee dina ko fekk fii. salaatan tajmau al xayraati muxjilatan dala ila al xayraati ala alladina qaada yowm aljumua qaaliatama li min munan wa jamaa sayidina muhammadin wa ali wa sahbihi fi lxaali walmaali واجعل بي شهورا والأيام هي سواقد قن الأيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا غبنا قبلي سلامة وقبلي عافية وعصمة واجعل خروفي شافية واجعل تلاوتي وحظي أحب من العبادات ليك يا محب والتغني مكرك يا عليم والتغني الغرور يا حليم والتغني سوء القضاء أبدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زال الفسادا لخير ساتي ونفى القصادا